bonjour directeur. heure bii ngay ñëw. parce que y avait un embouteillage là-bas. wala embouteillage néew ma la fii yow yaa fi war di jiitu di defar fii yëpp balaa kenn di ñëw. directeur moi je dors pas la je fais des rêves des cauchemars directeur il faut que je veux voir un médecin directeur tu sais les pirogues là quand on partait tu vois tu vois des poissons Qui crie Modou Mbaye Oh Modou Mbaye Oh Modou Mbaye, faut De gros poissons. J'ai problème, j'ai problème dans ma tête. eh déglu ko gis nga lii boo amaatee jarutul ngay xëy si. docteur est-ce je peux avoir un peu d'avance pour aller voir le médecin s'il te plaît. dama nga non non non maa maa ngi yow dañu ko yàgg. daa mel ni arrivage yu bees am na de. non yu tax am na sama xel. lu tax woowoo ma. waaw seet naa ñoom message client yu bëri envoyé naa mais mere naa mais ci lan moom sama ma fii rek laa koy fekk. ma dem gis ko fenn sama ko ñu koy jaay mënoon nga ma wax loolu yow tamit. non international la nag. sama ah. xarit képp foo dem ci Amérique. Mhm. gars yi moom la ñuy boo demee France noonu Italie noonu ba ci Afrique yi nii yëpp Mali ñëpp ah. wuy ma am na sama benn xarit mais ki ma fi àndaloon l'autre fois Astou Fall. da nee na moom daal mi naan mi naan mi mais yow heure bi ñëwee ci man de. non ci loolu. yaa ngi boobu léegi de. xalaatuma ko sax. mais wuy ma. kon lu mu la waxoon rek dama benn copain bu jóge France. jàngi ji woon affaire informatique da ay nag macha allah mais xam nga ci lu ma liggéey nii dama ko soxla mais saa yu ma waxee mu indi ma ay affaire da ay principe ak yooyu noonu mais problème am lenn la dafa bëgg jigéen te ñemewul loolu tax ma ne bàyyi ma woo la yow nga mënti ci dara sax au moins. loolu sama yëf la dama koy gérer. xool ko mi ngi ñëw na xool. Abass <laughs> kaay kaay kaay kaay. waaw mais doomu ne. ça va naka mu ah, kii kii Ndeya la tudd. waaw ah, Ndeya. Ndeya Abass. yaa si jàmm. ça va alhamdulilah. léegi Ndeya. baax Ndakaaru lii moom wagg la am ah, suusal. bii bu baax bi la. kii mooy xale bi mu la doon wax. Hmm. waxtaan ak moom léegi nag yaa ci des ah gisoo xale bi. waaw ah, dañ koy macha allah. manqué woo nag mu ñëw ngeen toog yéen ñaar ngeen waxtaan. Hmm. waaw. baax na defal kii mooy sama copain mu la doon wax. bon tungu ne du teew ñuy nataal Abbas chaque jour que Dieu fait ndeya ndeya ndeya ndeya. ndeysaan. sérieusement nan nu sa copine boobu boobu nga àndaloon dama neex. ma ne ko bàyyil ma woolu ko comme sa nga waxtaan ak moom. du loolu mooy yoon. dafa baax sama xarit. waaw léegi man maa ngi jug bàyyi ngeen waxtaan yéen ñaar dégg ngeen ah. ah sama waay mais wuy ma. sa sàppam ak war a kenn du jàmm. Dakar bi ma woon doon wax da nga demoon Paris jàngi informatique. waaw dëgg la dëgg la. fa laa jàngee kay dem naa foofu vite fait xam nga. Mm-hmm. def foofu formation informatique yooyu noonu am gën a xam. après ah, ñibbi si ko waaw. Mm. affaire yi nag. ngi si jàmm. gis naa laa gis. avant tout. jox ma sama savon yi. Koujik waat bi ak tournaise bi. misaal jotul ma savon tournaise. savon tournaise. voilà. ana euh, sama diw yi collagène bi. collagène bi waaw. mi ngi nii. àndaaleel ma huile ndax seddaay bi mi ngi nii di ñëw. seddaay bi de. ku weex ku weex yow la neex. ana sama laay kii tamit nag ñooñu. ak yeneen yu bees. ak uh-huh. am naa kandi. am naa yees yu kan. am naa rosa. am naa secret. bi daal maa ngi ci vingt couleurs. jox ma ci ñaari carton kenn ñoom. kon neex. Euh, léegi Modou xam lu ñuy def instant yi benn temps danga ma koy am leel nga defaral ma facture bi ma daw la ok waaw. Ah, fexe ba am ko. Hmm. waaw wut naa wóor naa fu ne fu ne. na ah, sinon yow information tey déggoo si dara. dégguma ko de. xooluma ko sax. doy na waar bi ma deux minutes rek ma saa yoo xam ne pare. mais booy bi booy faa ma jàpp de man xaw ma nu koy wax. may wax ni. waaye ah, yow damaa réer. léegi xam nga ni ñuy def defal nga laaj ko numéro après nga tàggoo ñibbi demal nga laaj ko numéro rek tàggoo ñibbi demal demal def loolu. Eh, ndax activité yi nag. ça va de on gère. yaa ngi doxal tuuti rek. Ah, affaire yi dafa war a dox de. incha yàlla baax na. yàlla baax na yàlla baax na incha allah day baax mais wuyu ma. Mm-hmm. baax na defal na fii sa numéro sa numéro defal ma ko fii. voilà saa ñu déggante. incha dina ci baax. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam naa maa ngi ñëw dem. ah, ah maa ngi ñëw dem. ba ah, baax na ah, ndaw yi ma war a def rek. waaw xam naa déggante. incha kon maa ngi daw acca. xoolul tax xale France xamuñu àdduna dof la de. kon de sar sargal nañ la de xanaa fajar fajar bi du su kaa bi maa ko du jënd waaye ki mu nakaat Aliou Mbaye dégg naa ñoom uh-huh. uh-huh. ak garmi moom nga xam xamul lu dul na biir uh-huh. ñun ñëpp teg nañ seen bët kër gi ah bon waaw sama place nag damaa bëgg nga bàyyi ma ci xel ak lu mën a non yow garaawul yow yaa fi nekk gum yaa fi nekk gum

man sama émission bi kañ la koy commencé. xam nga lu ma jaaxal. waaw ñu fi yor émission ñëpp kenn ku ci nekk ñëw nga indaale sa invité yow yaa ngi fi yor émission ba léegi munoo fex ba indil ma invité. noonu maa ngi ci mais tamit yéen maa ngi fi xool mbër bëgg ko indi ñu naan dañ koy yóbbu xaw ma divertissement xaw ma tamit kenn ku liiru jaan ko fi. dégg liiru jaan indi woo ko fi de. invité nga wax. eh Aïcha. kaay kaay kaay. mooy yow ah Aïcha sant nga de. oh mooy yow. Issa toogal toogal toogal. Aïcha la. eh waa dégg li ça fait l'occasion. le leader qui mérite son nom. maa ngi ziar. kii pare na ndaanaan bu mag. namu la. ah taalibe Abdoulaye Wade bi. doomu day Youssou Ndour As Ndaw. waaw yow doo taraaju. xalaatu ma ko. nga ni. maa la wax lii waa na Youssou Ndour sa xarit. mu mu si jàmm baax a baax. mu si occasion. yaa woo ko fi nag woo ko fi de. waaw mais benn la. Aïcha yaa fi indi. maa koy indi waaw. pour sa émission politique yow mbër nga wala politique. yow yaa wu jaar kay bu ñëwee fii ça fait l'occasion pour ñu def ko def defal ndànk déedéet defal ndànk. Youssou Ndour nee na mën na si bii boor mën na si bii boor. waaw mën naa si ñaari boor yëpp. mën naa si booru politique ba. Mm-hmm. mën naa si booru làmb ya mën naa bàyyi. léegi mais làmb sax munoo wax munoo wax politique. te waxoo Ablaye Wade foo tuddee Ablaye Wade foo nga tuddee. Eh, waaw dama ne Wade ak Mate lan yemale yow yaa ngi cuubu de. da ngay jël kuure. kuure lan. da ngay jël kuulaawa. <laughs> ku la bàyyi tey ban nga déggee. fokk bu daw. fokk bu daw. waaw man sama yow. muy ne. waaw. voilà kay kay kay kay. ah oh oh tey bi combat. laa ilaaha illallah. sim. ndam mu ca yebu ca. waaw waaw. avance bi ni ñëw. jeex na tàkk. combat bi. waaw waaw. fi sele. jeex na. jàmbaari siin. combat bi taxaw na. onze ba lay xaar. ndaka yaaw jàll. waaw yaaw jàll waaw. kenn waxatu ko. waaw mais kii dafa am licence. te man awuma licence. loolu ban CNG la. mais yow taa taa taa ba yaw yaa rafetum lay. ah waaye yow lii nga bëgg a jàppoo mooy la. man Dakar xool naa boo xool mais konoon saraxa ngeen bëgg. Ah. waaw. Dakar yi waxoo mun ne divertissement mu ngi indi. bala ngaa ni divertissement investissement investissement bi mooy indi divertissement bi. waaw. Oh, oh. Ah, ah. dégg nga dégg nga dégg nga naa la woo ba xool ko bëtu ragal yi yow kii te góobutal jigéen boobu comme góor ñëpp daw na le waaw jox ko jigéen dee ngaa jël Aïssa mii ndax di nga ko daan ba xam léegi waaw utal ko combat grave léegi Aïcha foo ñu xool léegi émission bi ñu koy maintenir comme ça yéen ñaar ngeen dem studio bi ci kaw yow ñu dem commencé xool ko xool ko nañ ko liggéeyal maa ngi. Eh, yow bul wax ak man yow ndukkumaan sax dalaa xam yow kenn xamula yow yaaw jaal bu ma la dee jël dama lay dimbali rek ku leen di dimbali nag ngeen di cuuboo ko kii yow gis nga kii yaa ko fal gis nga kër gi nekk fi jigéen sax a nekk moo gën a nekk fi góor yéen ku xees rek ngeen jël fal ko. sa mbokk communicateur traditionnel yi dama nga wooli leen comme ça nga waxtaan ak ñoom en tant que. dama yow xam xanaa ñëppalee xeex sa produit yi laa ku doon yéeg la waaw mu doon hmm. yéeg. ngeen ñaar waaw. ok baax na kon baax na. mais yow. Hmm. saa waay ndekete fere tàppet la. tàppet. ma képp ko démb sama kër. ah. dara dara dara dara dara. dafa daw. départu gaynde arrivé muus. <laughs> ci waxtaan ak fi mu nekk ci si ah DG ah tu es là xamante ni mais déjà yow laa war a laaj lan la ça va bien lan la ça nii nii amee lu xew déjà gis nga sa bopp ni nga froissé nii nga mel ni ko doon xeex bon tu démb sama chauffeur bi dama ko teel libéré parce que dama am rendez-vous du coup oto bi génn te xam nga day Dakar yi dafa xat hmm. bon mu jël à bi crevé ci yoon bi oto bi amuloon crédit tamit moo tax mu fanaan ci mbedd bi. waa autorité bi bàyyi la fa nga fanaan fa. waaw. kon mu dee ngaa sonn de. ah oui ci mbedd bi laa fanaan tamit. moo tax man. Eh, déedéet. yow sax waay nga quoi. yow nga mun nga nëbbu ku ne ba mu des man te man ba jamonoy baax boo mu nëbboo dama lay réer mais yow duma la réer ma lay wax nga dégg ndax mooy yoon xoola DG sa chemise bi. lii du rouge li leen du fond de teint nga bëgg ma gëmloo ay autoroute à mais bon tu sais waruma doon dem c'est ça vrai mais boo nañ ko bëggoon football muuma. bàyyi ma arbitré ko. non football muuma jarul arbitre. muumaay arbitre bàyyi ma arbitré ko. tu sais xam nga yow man gaynde la waaw ah, bu mag waaw gaynde la de. sa assistante bi Chacha. waaw waaw. moo ma joxoon rendez këram. Ah! baa wuyu ju nga ko rek. waaw wuyu tamit te xam nga génn ci diggu Manding. ci lii. non Dakar non li ñuy naan guddi am na boroom. Hmm. man démb bokk naa ci ñu moomoon guddi gi. looy wax ni. man gëmul naa ne maag lëg daawut ñoo newoon Dakar. te xam nga yow man du ma rëbb sooy. mukk pour yow rek te njaay nga sant sax. baa màtt nga ko rek. loolu c'est de la bonne tamit. dawal gu baax gi la. tey sama waat yi mais wuy ma fii ak fële fu dàq. tamit fii yàpp la fee mbuum la. ah bon. te génne yi ndawal la ko gënal lépp. waaw te lu bëri. dinaa ko am. waaw déedéet déedéet ko waxee. maanaam moo ci loo nekk. ça va bien. waaw. yow t'es froissé là. waaw non dama amoon benn imprévu la. imprévu sa col bi sax defaroo ko bu baax xanaa jóge woo sa kër. en plus ta cravate elle est même pas bien faite. ah oui en venant là dama crevé ci yoon bii. Hmm? ah oui. dama mujjee dépanner sama bopp. démb jëm naa la woo jëm naa la woo ba sonn la tax jëloo woon samay appel. j'ai un problème avec mon téléphone la. Hmm? day planté la du mbooy ba may woo dinaa ko gis mais du ma a décrocher. Ah yow eh, kii dafa amoon match bu mu demoon fu football ji. match bi di laajte rek. temps tamit taw si Dakar ban match da ma gis ak ay godaas tamit bu ma fekk muy football lu may wax. seen affaire leerul de match ok bon dama ñëwoon pour pour xool ba xam suba la ñuy commencé tournage yi tout parce que man sama équipe bi yëpp instant bi ni pare nañu. pour tournage bi laa faloon nga wax ak Ndakaaru. attends ma wax ak ah. non tournage bi sax dakale naa ko ba semaine bii di ñëw dafa am lu may. lu may xalaataat. yow yow yaay directeur bi wala lan. c'est vrai que mais Serigne eh, bu ñuy bind fii. nga baal ma mais kii wax ak moom dafa jot yow yow yaay kan yow. fii nga jàppal ni man maay décider te semaine bii di ñëw la ñuy tourner soo mënee nga toog soo mënul nga. yow eh, waxal ak moom ba ma dépassé. DG may ma kii rek. maa la ko ñaan non non non non. fii ampli beeg micro bi maa ko yor. Dakar Dakar dugg ci. man maa géré yow. yow yaay directeur bi gis nga comment il parle avec moi. yow comprendre ko lu lay dal sax ay affaire de actrice principale nga wax bu fu muy ñëw ak yow doo ko xam sax. actrice principale man maa koy joué. kon yow man maa bind sama histoire. yow kon wéroo. xamoo lu xew sax. <laughs> gis nga ni muy waxee man nga fa ne li yoon la ah. Oh. ah la beauté africaine c'est bien africaine ça c'est ça la femme africaine. dama la. oui. Ah. man li ma gis fii ci kaw. dafa garaaw de. lu lu gaaw gros la vilain comme ça là. Dakar ngay wax loolu. oui oui je le vis. là-bas lui avec une fille la fille attrape le DG comme ça. yow yaa gis loolu. yow yaa gis loolu. non non je n'ai pas vu mais j'ai attendu. xam nga lan laa wax. que ça soit la dernière fois nga ñëw di ma nettali. est-ce que yaa ngi may dégg. faut pas dire quelqu'un que je dis. demal nga toog yow. faut pas dire quelqu'un que je dis ça. am nga melokaan de. t'inquiète pas amoo fula ci sa bopp gis nga lii bu continuer man damay arrêté damay gedd sax. DG. ça va. ça bien kon yow boobu léegi yaa ngi toog doo dem changer sa chemise bi ak tache bi mu am nii. di mois sa café bi ma defal la long wala court.